Sénégal ah ku ne xam ne SBT Média moo fi teew ñoo ngi ñëpp di bëggee ñëpp deel waxee tey ku ne xam ne lii ko nga xam ne mooy Mandiaga moo xewle dëgg neexul bisu rëy waaw bis nekk rek bis bu bis xaar xaar jël xale bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. SBT Média moo la seet si. nekk. da ngaa sañse. merci mbooyee ko laaj bisu mbooy bee ko laaj booy nekk ku baax ñaan. xew la ñu ñëwal ko nii rek la mën a mën a demee. boo dénk mooy loo koy dénk. a ah, lu ma koy gën a dénk mu gën a jàpp jamono ji gën leen a jàpp yéen ñaari xaritam ak ngañ fay mi mu tuddee doom ji tam kenn moom di ko sant di ko gërëm da xew mi daal neex na. kontaan nañ. ñoo gën a kontaan. Mas ku ne xam na ne xale yi tey gisuñu def xale gisuñu def topp ma ma wala keneen kaay topp ma ma xool xale yi jëlal ma kii SBT Média moo ko seeti. xale bi daa sañse salaamaaleykum. waaleykum salaam. tur beeg sant yi. ma laa tudd sant Ndiaye. da teewal Mboye Madiaga loo koy dénk. ah Mboye moom dañ koy sant di ko gërëm. mention spéciale. ñoo bokk dëkk moom fii ci koñ baax yaatu bëgg ñëpp. moo tax ku mu woo ñëpp buy si ko. xale ma xale bi sañse xale bi daa dégg. na ak dañ xale yaa nii ñëpp a teewal Mboye. ñëpp a teewoon mbay xoolal borom tatouage bi xoolal xale xoolal ma xale bi la mu def jëlal ma xale bi salaamaaleykum tur rek sant. salaam maaleykum salaam. awa. tey ni nga defee mooy ni nga teewalee mooy. waaw gis nga sama papa dafa xewle te tubaari kaala bu xewle nii rek lañ mën a def. moo fu bandi. def simple rek ubbi bata bi mu wadd rek ma ne ko yaay def bala mbay yooyu ak yeneen looy dégg mooy. booy dénk mbooy loo koy dénk. ko wax mu xaañu rek yàlla baax na doom ji yàlla judd ba am ndey ak baay. ku ne xam ngañ maa ngi lay nuyu. salaam Balla maa ngi lay fay. ku ne xam na ne yow la mooy tuddee doom ji. dëgg la bis bi noo ko dundee. waaw mbégte ndax yaakaar naa ne àdduna mënu ma ci lu gën a rëy ndax ki la tuddee doomam ay tutoon doy say jikko doy na ko te maa ngi soog a dégg turandoo kon maanaam yaakaar naa ne samay jikko doy na ko mënu ma am bis bu ma gën a rëy ni bis aw barki doom bi ma jural sama bopp bi moo moo leen gën a ñor moo ma leen gën a intéressé te yaakaar naan bis bi ni ma ko engagé sax tée ñu teg ko sama kaw bopp nit ñi na nañoo xam ne bis bi na ma ko doon dénk mooy noo koy dénk waaw li ma koy dénk mooy fi mu teg tànkam bu ko teg ndax fi mu teg tànkam su ko teggu lu ne mën naa ñëw woyof maaseeg nit ñi te déggal na ma barke Serigne Saliou loo wax si SBT Média mi ñu couvrir bis waaw moom sama xarit la xam nga moom sama xarit la waaye daa am tur boo xam ne da koy bañ daa boo xam ne doxay bàcc xaw ma woon doxay bàcc mu jaar ma ko ko waaye sama xarit la moom sama xarit la. kañ kontaan nañ si yow. dëgg neexul bis bu a bi say fay te ko wala xale xam dañoo sañse xaaral ma jël sama soxna ma bii tey bisu ma jaaga bi noo ko na ko yàgg ay bisi bis bu baax yal na nekk. boo doon dégg ak Fatou loolu ñu ñoom ñaar Mboye ak Fatou. waaw Fatou na gën a góorgóorlu rek ndax moom lu mu muñ doyul moom lu mu muñ la doyul barke yonent bi ndax nag jàmbaar la sëykat la barke Serigne Touba moom jàmm rek lay am barke yonent bi ayoo ko nekkee. si la xale bi waa Sénégal ku gis xam ne am lu ko tey ko gis Bijou mu ree xam ne mooy ma jaaka li fi def dëgg neexul xale bi mooy borom mooy ma jaaka messageur daaw nga nekk ca lam mooy ñu lay maa ngi lay fay suma xarit suma doom nday mooy xam naa lay laaj li tax affaire yi demee nii. waaw Balla Mbaye sant waa géejewaay yow xam ne man lu ma am waay moo ma ko defal yow xam ne man lu ma am lu ma mel waay moo ma ko defal. mbaaxu waa géej ak banlieue bi nag Parcelles Pikine Grand Yoff Diamaguène Kër Massar ah ginnaaw raay lu ma am ñoom moo ko defal. ma jaaga tey xol yi ba fees barki alxuraan ku gis lii xam na xol yi ba tooy xel yu démb la commencé dañoo gën a sant ñii ñu lay jàppale wax ak ñoom mbooy mbokk yi ñu jógee fu nekk ñëw ci yow mbooy amagoo dara ci aar li ma lay wax mooy gën a sant ñii télé bi ñëpp a léegi seetaan SBT Média ñu ngay seetaan ñëpp ngay seetaan en direct SBT Média sant ñëpp di gërëm. waa Balla san sant sama sant ginnaaw ma sant yàlla dul si yonent bi sant sama yaay bu baax waaye nag gërëm samay fans di kontaan si waa Guédiawaye sama xol sedd na kontaan naa yal na yàlla def jàll kontaan naa sama ko sedd na jërëjëf. looy wax ci Fatou. waaw moom teral ko rek teral ko kontaan na teral ko ndax damaa muñal biñ ma koy may boobu may ma jabar yombul kon dama kaa bëgg a teral single bi yow kañ lay zone trésor bi jënd na ma sama doomu sama seex borom tey dëgg neexul mas ku gis xam ne tey ñëpp a kontaan Sénégal ñëpp kontaan gis mbay ma jaaga xam ne mooy borom géejawaay mooy borom ñit xale bi yoon njëkk def ñëpp di xëccoo moom ñoom def wàcc leen dëkk bi yëngu ku dem ku dem tey coupe d'Afrique bi final bi leen ku ñëw fii tey dégg wàcc leen ku ne xam ne Mboye Badiane yàlla na ko cat seexlu yàlla na ko cat seexlu dëgg neexul waa SBT Médias ñu leen di gërëm di leen sant ku ne xam ne lii neex na maas kontaan naa ci yow bég naa dëgg neexul xale ma dem si beneen xale yaa ngi nii xaaral ma jël kii gi sama jabar la sawaan dana def soxna si ni nga def daa bëri doole SBT Médias moo la seet si noonu si bisu mooy boo doon dénk mbooy loo koy dénk. waaw ah, mu góorgóorlu rek góorgóorlu jàpp ay fan. danaa sañ sa ma xool ah, il faut que jug taxaw dëgg neexul bisu sañ la bul sewal mbooy ku sañ sa du ragal dafa ragal sama jigéen la dëgg ragal nañ toog ba si kanam nañ toxal xool Cheikh Gueye ba si kanam dëgg neexul bu ko defee ñu ñëwaat. maaleykum kii sama xarit la SBT Média moo la seesi noonu suñu si booy suñu xarit la lii moo ñu war lii ñu war tey fii day métti day yàgg tey dootoo leen ko def booy ma jaaga sama xarit. booy dégg mooy loo koy dégg. waa xanaa mu jàpp jabaram rek jàpp jabaram téye ko parce que li mu def ni daa sagal jabaram bu sañoon am bisu mel bisu taaru na lekk yi doy na xaritam yi wuy suñu macha allah yàlla na yàlla jàmm. ku ne xam ne xaarim taawa nii xale bi si jamono. dëgg bi neexul senegal boo nee benn artiste Khadim Samb nga ciy teg dëgg neexul noonu dafa xale yi. tey fii du yomb tey dina nit dina yaaj. kontaan naa si nuyu ñëpp. waaw di kontaan si yéen rek di di ñaan yàlla defal ñëpp jàmm. ca kaw ca kanam. dëgg neexul ku ne xam ne lii la neexul kontaan nañ ci kanam ci kanam lépp day leer. ku gis lii ne booy ma jaaga moo xewle sama mag Thiat Seck daa ñëw di magu mbooy kii moo jàngal mbooy way dëgg neexul maa fekkee lépp man Balla Mbaye Thiat maa ngi lay nuyu Mawlana Mawlana Mawlana Seexul Islaam ma baay liggéey na Medina yow da nga baax bëgg maam Baye Niass ngay sama rakk di sama xarit Balla mbooy di sama frère ñu yàgg te dara mu sa ñaa mbooy maa ko bëgg te yéen maa leen bëgg mbooy la gën a bëgg looy dégg mbooy looy dégg mbooy waaye mu a mu ngi liggéey macha allah nañ wàcc suuf wàcc leen si suuf si suufa suuf waaw jaata gi nii di suñu mag ku ne xam ne dafa ñëw jàppale mbooy rakam dëgg neexul loo wax SBT Média loo wax télé bi SBT Média waaw SBT Média maa leen di ñaanal télé bi gën a kawe di ñaanal tamit Cheikh Gueye sama rak ndax jëgadiwuma jëgadiwul mbooy jàmm Mboy am jàmm Assane Assane am jàmm manager ngeen am jàmm yéen staff yëpp ci barke Sëñ Touba suñu télé bi nag ca kaw ca kanam. asalaamaaleykum sama xarit sama doom daal Amath Thiam waaye su fekkee million moo la set maa la si dem fooy. waaw Bala Mbaye maa ngi lay fay tey dama kontaan ndax nag tey Mboy day sama xarit sama lépp dama kontaan bis bi mel ni joomu ko ndax ku ne ma sa xol moo sa yoon moom xolam daa def su doon Baye Fall. ni ma bëgg lu ko raw laa ko bëggee tey damaa kontaan tey fii dina xam ne Amata woon nii looy dégg mooy li ma koy dégg mu gën a góorgóorlu xam ni xale la mu ngi si yoon àddina dañ koo bëgg Sénégal dañ koo bëgg te nag daa gëm ragul yi soomu jom li ma koy dégg mu gën a góorgóorlu a respecté waa Guédiawaye di nuyu sama aawa buuru këram nag bi xam ne mooy sama séeréer bu waay aawa buuru këram. ndeysaan Omar Saw ji moo jabar jee taxaw moo ko awa buuru këram dëgg neexul sunu jabar jaa ngi jabar looy dégg mooy di wax sa jëkkër waaw mooy dama koy dégg mu gën a dem rek sa dina baax lépp ci kanam ci lu baax dangaa sa jëkkër jugal ma xoolal jugal jugal taxaw